loolu yep avec son parcours son discours ce euh, ko c'est ça le projet euh, de Pastef en fait euh, le projet de Pastef c'est une vision. Naby Vision fi nga bëgg a Sénégal nga wax ko Sénégalais wër Sénégal depuis 2014 du coup expliquer Sénégalais Euh, patriotes les réseaux sociaux di jël projet Bob du coup porter du coup expliquer Sénégalais du coup expliquer Sen ay famille Sen njaboot yeeg ñëpp ba ñëpp dem ba approprier ce projet de Pastef c'est ça le projet de Pastef en fait c'est une vision fin fan la bëgg yobbu Sénégal c'est ça le projet de pastif bon après xam nga dañu jéem a tuur la ndëm nit ñi waaw dañoo waxoon nit ñi dañoo yor projet euh, ñëw ba toog ci nguur gi euh, fu mu nekk nii waaw léegi nee nañu ñu ngi ñu ngi ñu ngi doog a bind projet bi non ils ont une vision fu ñu bëgg yóbbu Sénégal ils savent où est-ce qu'ils veulent aller ñu expliquer ko Sénégalais yi xaatim ay ay ay ay livres jox ko Sénégalais yi def ay meeting expliquer Sénégalais yi fan la ñu bëgg a jëm wax ak mag ñi wax ak ndaw ñi wax ak jigéen ñi wax ak ñëpp.

nga xool li nga xamne dafa jamp mënul xaar moy li président Bassirou diamay fay def pour ndox bi pour courant bi mën amat bu gaaw moy les dépenses de l'État nga mën ko assurer le temps que nga def yow ce audit xam yow ci lan nga parce que keur soo si sax ñu dénk le dépense mais di nga dugg ci wañ bi bala nga dem marché xol nak lan la wara a jënd su ma demee marché nag saaku ceeb bi dafa jeex wala jeexul nak amna naa nak amna euh, euh euh ay condiments so xoolee def sa état des lieux nga ne kon léegi man li ma yor suñ fi demee marché xamna na nak lan la jënd pour mën a ñoŋal li nga xamné mom moom lañ ma dénk mais bon après ça c'est rien après xam ñun aussi ñun li nga xamné dañ ci dugg di ci japp tak ci rip ce projet ñun xam nañ ko maîtriser nañ ko <laughs> su fekkonte rek ay wax la ni yu ay journaliste di def kon Pastef tay du aksi tay fi mu aksi donc ñom bon mën na leen bay ñuy wax.

donc c'est juste pour ça qu'on les suit parce que Yérim il a l'habitude de dire waouh, gis nga il may wax ñëpp may déglu bien sûr que oui il lay a pas Seck yow mais tout le monde t'écoute pour lan pour me décortiquer tes mensonges on t'écoute pas parce que bon dañ la on t'écoute pas parce que da nga am xam on t'écoute juste pour xool yow fen yi nga war a fen naka la ñu jëlee fen yooyu ñu wax ni sénégalais yi lii ay fen la. nabi Vision. donc c'est ça le projet de Pastef gars yi ñun duñu ay dof Ousmane Sonko ñi nga xam dañoo top le projet Pastef du ñu ay dof ce parti de Pastef ñi si nekk di ay boromi xam-xam ñi si nekk di ay boromi xam-xam ñooñu ay waxi euh, tappale taxul ñu jug ñi nga xam ne dañoo joxe seen bakkan pour ce projet ay waxu tappale taxul ñu jug joxe seen bakkan parce qu'ils ont compris c'est quoi le projet ils ont compris c'est quoi la vision de Pastef beneen mbir bi mu bëggoon yokk tuuti fan yi dañoo gis benn affaire bu commencé di xew et ça je le dis ils sont des chroniqueurs estampillés, pastifs. Des gens pour qui j'ai énormément de respect, gars. Énormément de respect parce qu'à moment T, un moment euh, compliqué dans la nation sénégalaise, nous défendre Donc, nous nous c'est ma reconnaissance éternelle mais par contre am na nous xam ne ko euh, plateau télé dossier ONAS le ci xam lima le ci yëg lima sama téléphone dossier yi ma yor dossier port le ci xam lima le ci yëg lima ci téye jabaru gars ci liggéey doomu ci liggéey la waxal non mënu ma wax dossier LONAS, le ma ci xam li ma ci téye li sama portable le ma yor ci document le ma yor ci lii su ma ko révélé woon Sénégalais yi d'or daw dóor daw dóor leen ñu la waxal et puis bon tu vois les mêmes mecs ils font le tour de toutes les chaînes. nabi Vision. YouTube ils disent la même chose lima ci xam lima ci yor lima ci tey journaliste top la nak wa wax ñu si tuuti sax wa ñamal ñu ci sax non, ne non non oui, mënu ma si wax légui non damay xaar parce que lima ci tey mais tu viens tu vois au dossier qui est là sur la place publique tu as des informations informations yoo xam ne yow lii alalu Sénégal li ñu luubal tu les as admettons que tu les as nga ne doo ko jox sénégalais non le mot qui faut rek c'est quoi et puis bon à part de là bon tu es invité partout nga euh, euh, euh, Simon Faye moo Marie ñawal lii euh, maa ngi Pape Diop au Canada bon Marie ngi gërëm Modou Khoule de Atlanta Marie ngi euh, Sohna Diop de de de Bergame moo ma yónnee montre bi bon et puis tu t'habilles bien tu es là posé une belle montre une belle chemise bon apparemment naaj de du parce que les émissions souvent c'est à 19h bah euh, toute la journée bon peut-être que tu dors vers 19h tu sors naaj bi du la laal nga jàpp temps ñëw toog bon et puis le ma ci xam li ma ci yëg li ci ça n'a aucun sens il faut qu'on arrête de, se jouer de nous quoi en fait parce que la situation du Sénégal personne ne va nous la prendre nous xam lu ñu xaar que les audits se terminent Nous xam exactement l'état des lieux ñun loolu que ñu soxal mais bëgg a toog de ñu waa APR dañoo yàq dëkk bi mais xam ko moo ñu takk ci projet en fait vous nous apprenez rien du tout moi, quelqu'un qui vient me dire, appelle Réumi, on le sait. Mais on n'a même pas besoin qu'on nous fasse un tableau pour nous dire, appelle Réumi on le sait très bien. Maintenant, le président Bassirou est là, le premier ministre est là. Ils sont en train de, faire des audits. Mais nous, audits, c'est nous avons le chiffre exact. Chiffre exact. Et Khalis, si un canon, mais voulez nous dire nous en fait nous, on vit dans ce pays. Hein. On voit le niveau de vie de certaines personnes. Mathématiquement, c'est impossible qu'ils louent le cap là. Nabi Vision. Donc, venir tenir en haleine les patriotes comme Gaïden, ouh, ça va, il ah, pertinent. Mais il n'est pas pertinent, il dit n'importe quoi en fait. Parce que tant que le moitié comme, le moitié thé, le cholas en le meilleur affaire yang danou, le meilleur document à kergue. Bah écoute, et voilà, il n'y a que faïda, il n'y a que faïda, voilà comme ça. ay chroniqueur ñoo yor documents yi nga xam ne tey moom lañ gars yi nekk def audit war ko yóbbu au parquet financier mais ça n'a aucun sens en fait. Parce que ben ça, Parce que le passé vient d'arriver au pouvoir. Hein. Il y a toujours l'euphorie. Les gens les prêtent toujours une oreille attentive. Mais Soko Péni, on a deux ans. Le moitié le moitié le moitié les le moitié sam les naissants portables, documents yor Bah, écoute, soit tu le dis, nous amna, soit tu te tais, ou bien tu parles d'autres choses. Donc ça, c'était juste quelque chose, beaucoup de touti ba baaxé ko un peu voilà gars yi nek ci plateau télé yi bon ils sont estampillés passifs li ma ci xam li ma ci yor li ma ci téy dina portable machin truc chose ben ça bon voilà ça devient rinçant à la à fin quoi. Euh, benen mbir bi bon gis nañ sunu sunu sunu presse comme d'habitude gis nañ sunu patron de presse bon moi franchement honnêtement mon c'est employerie mon man ne ay nit yu ñak fay ngeen quoi les employeurs de la TFM du groupe GFM les employés. Euh, du groupe euh, des médias et autres, de, de, de, de du journal de Madia Parce que vous, les employés de la Sainte TV, Yann Bougan Gaydani vous doit de l'argent. Il n'a pas payé les salaires. Ou bien il les paye en retard. Il n'y a que du quoi défendre. Si vous voulez, c'est votre droit. Mais Benesson, moi, je suis en arrière, d'abord, arrière de salaire, du père de famille. Si le pays, paye, ça m'a salaire. N'est-il au minimum, il y montre pour me garantir, je ne et toi, tu me dois de l'argent. Si tu as au moins 10, 15, 4, 4, tu as 100 millions. il, me doit de l'argent. Et moi, je, reste sur ma télé du quoi défendre. Mais comme si tu as un mais un Parce que moi, honnêtement, si tu me dois de l'argent, mais ce richesse donc ko ni ci mbedd bi nan yorna montre bo xamné ne mën je me déplace avec au moins 10, 15, euh, quatre 4 4 ne bu nek warna millions man may caméraman top ko filmer alors que man Vision. le groupe GFM pareil Youssou qui vit dans un luxe insolent et qui vous doit de l'argent mais vous continuez toujours parce que l'autre mais jom man motax gis nga ça ah, me dépasse en fait Vous bu ñu moi franchement des fois damay top du xool nak la nit meuna ñaké job à ce point Madiambal Diagne qui se permet d'aller regarder tous les matchs dans les dans les euh, coupes du monde soit mes des champions cette année, et le gars il me doit de l'argent mais le nour fay mais bi ñu ko fi agressé nous wuñu xoma 3 millions moo non ci sac bi et pourtant les employés de la CTV, tv nee un ñoom ay ay elle vit dans une villa bo xamne xoma millions elle roule avec une un 4x4 bo xamne ça coûte plus d'une centaine de millions et elle vous doit il il vous doit de l'argent et vous continuez quand même, vous n'avez gagné défendre. Moi, je vous dis une chose. Hein. Toutes ces chaînes, vous allez disparaître, mais naturellement. Je vous l'avais dit, Ben Assam, vous allez disparaître naturellement parce que nous, il recevait toutes les publicités de l'État du Sénégal pour l'an, parce que l'État a une chaîne TV, il y les pubs. Belle affaire, c'est pas moi qui le dis, c'est Serine gars qui fait cette révélation. Tous les mois, Max donne 50 millions. Nga bolé ci duma fay impôt. Nga bolé ci so jëlé le TVA bi nga da koy jël ci publicité yi doo ko reverser état nga dagg ay ay ay ay ay ay ay cotisation ci salaire nit ci doo ko reverser état di dund dans un luxe insolent mais kenn du leen laaj dara parce que tant que yaa ngi ñu défendre ay fenu Macky Sall Macky Sall la ñu bàyyi noonu et le groupe Walfadjri en a souffert mais leen gis nga dëkk bi bés bu demee ba ñu jëlee fi Macky Sall que la situation redevienne normale mais man su ma nekk un annonceur man ma am un produit di ko yóbbu publicité mais bu njëkk dama doon ragal yóbbu ko Wolf wala feneen parce que état day dal sama kaw maintenant je n'ai plus cette contrainte Parce que ma amee sama pub mais demain cette chaîne boo xam ben benn Mame Birame Wathie mi ngi fa benn Moustapha Diop mi ngi fa ma xam ñuy sont très très suivis madame yóbbu fa seen c'est parce que j'ai besoin que les gens le plus de attendre le plus le maximum c'est possible mais du ma ko yóbbu euh, cette TV nga xam ben Nekle, ñu def ko studio def ko chaîne TV. Naby Vision. donc naturellement vous allez perdre pub naturellement aide à la presse bi ñu doon joxe dañ rééquilibrer. gën a ba ku nekk li nga xam mom nga jëyoo ñu joxe ko donc forcément naturellement di ngeen perte lu bari bari bari lo xam du état mo lañ xex mais c'est une situation normale comme ça se passe dans tous les pays du monde je prends l'exemple tout bête de la Suisse mais Suisse amener leen amee impôt waaw bah, ñu dëkk Suisse mën nañ ma mën nañ confirmer limay wax nga amee leen impôt wala même euh, je sais pas ben, ben, ben, ben, amende quand tu passes la frontière suisse garde frontalier des fois suñu arrêté ni, jël sa carte d'identité loolu foog dañu xool carte d'identité bi rek non kii nan la tudd Moustapha Niang ah nu mu sant Niang ah fu mu dëkk non day xol yow la première chose qu'il va chercher le garde frontalier nak yow baa ameeloo taxe réew mi wala baa ameewu fi impôt soo gisee su tapé sa tourner tac tac tac nga am amende ba faylu won wala impôt bo xamna fayoko mu jël ñaari plo ne la gaareel ni nga garé mu jël ñaari plo tek ko ni ben fi ben fi ne la wàccal oto bi nga wàcc mo la yow amel nga yow euh, euh, canton de Genève ou canton je sais pas Vaud ou canton de je sais pas quoi amène nga ñu nangam yow ah dama amel la waw. am nga lo fayé. fi nga taxaw non c'est-à-dire mun la ok fayal auto bi ma prison ngay jubal directement ñu dëkk que dëkk Suisse prison ngay jubal directement sa auto ñu tek ko côté yobu fourrière da je vais finir par là Annan ancien secrétaire général de l'ONU, mais il avait travaillé en Suisse ben instant si il fonction il faut, il faut, fa mais aujourd'hui ku Kofi Annan, mais dans le passé di di ñibbi di jóge Suisse di dem ñëw ba aéroport ñu téye passeport donc ah monsieur Annan, yow de da nga ñu ameloon nangam boo donc mon ne ah loolu xam moom fàtte woon na sax loolu ah nga ñu fi nangam boo xam ne il a fallu ko Kofi Annan, fayoko, fay parce que nous on ngay fay ci saa en fait fayoo da ngay dem prison ñu jël suñu impôt di ko foowee ba pare toog ci télé euh, voilà di jéem a jaay nit vous allez disparaître naturellement et lii moom dama leen koy wax pour ngeen garder ko pour vous. Nabi Vision. gars c'est ce que je voulais wax ci ci ci lu et puis le reste nag bon voilà y' a y' a beaucoup de débats y' a beaucoup de choses y' a <laughs> voilà y' a pas mal de choses yoo xam gars yi ñu débattent débattent, débattre débattre débattre la seule chose que je et j'en suis convaincu j'en suis convaincu que ce projet va aboutir nous sommes sur la bonne voie.

votez-le. Nous, nous, top après 2000, euh, je sais pas, 29 euh, ou 2035, c'est nous, ils sont venus, ben, le sacrifice, ben, nous, d'affaires, dormir Sénégal, Askanou Sénégal, pour Sénégal, gain, tu l'oublies, nec. Mota, buzz, buzz, excès, buzz, buzz, excès amul ay non suma ma li est-ce que dañ dama bëgg a foyonte état d'esprit nous ñom nekkuñu ci parce que ñun ñom ñoy bëgg dox suñu xel naan ñu waaw day Macky Sall la traque des biens mal acquis sénégalais ñoko bëggoon sauf que lui mo trahir la traque des biens mal acquis Régler ci un problème politique mais ñun Sénégal ñoko ñun Sénégal ñoko en fait la traque des biens mal acquis ñun c'est une demande sociale ñun moo tax ñoom dañu bëggoon dugal Pastef ci piège boobu ko non bu leen defee nii comme ni ne da nga ñu fayu moo tax xam nga boo leen ko defee nii bu <sniffs> Ousmane président Bassirou Diomaye Faye su décidé Ousmane Sonko di décidé wallaay xolal su doon nekk ci biir parti ñoo def lu lul yool sax yontal seen kaw waxutuma la keneen a keneen donc loolu rek laa bëggoon wax gars yi ñu ngi tubb nag bu baax di jégul asalaamaaleykum